Heavyweights.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 ca maris ca atum 2018 bi yoon nag soxna si ñu naan aajoob moo jàpp jëkkëram ji di wuyoo ci turu M Junior ba at yi toll ci ñaar fukk ak juróom-ñett daa koy taal ba mu jaare fa ñàkk bakkanam eskay ndaw si def jéye ji nag nee ñu at yi mu ngi toll ci ñaar fukk ak ñett musiba boobu nag ma nga xewee ca Rufisque ca quartier bu ñu naan dàngu nee ñu soxna si moo fekk jëkkër ji tëdd di nelaw mu sotti pétrole ci néeg bi daa koy taal noppi tëj buntu bi <laughs> ay waay ci ñuy bëggante naka noonu ñu ne ci la jëkkër ji lakkee lakk yu metti tubaab naan ko brûlure de deuxième degré ci noonu la ñu ko yóbboo l'hôpital pour des soins intensifs waaye nag malheureusement fa la jaaree ñàkk bakkanam inna lillahi wa inna ilayhi rajiun koor bi ñu mujjee ko yóbbu ca l'hôpital Dantec ngir def autopsie bi ca quartier dangu mi mbir mi xewee nag tees ba fay daw mooy ndaw si daal jëf ju ñaaw ji mu def daf ko waajal moom daal ay ba def li mu def jëkkër ji ay waay ma waxate ko ci ñu bëggante te it ba ñu lañ ba tee ba xool nee nañu lu tax ndaw si def jëf ju ñaaw jooju jëkkëram ji du dara lu dul fiirange <laughs> ma ne ko mën na lu nekk nag ndax ku jigéen ki da doon njortu ne jëkkëram ji daf ko doon trompé moo tax ma yokk ci ne suñu biir couple li ñu war cee def ndànk nag ndax ne ñu mbëggeel ni mu neexee noonu la nekkee arme de destruction massive ma ne fi mu toll nag réew mi infidélité wóorul de moo tax góor ak jigéen jigéen ko ci fooye yaa ngi gasal sa bopp ba mel la wax ndax ñun ñëpp xam ne ay woy dencante ku ci fexel sa morom du rëcc waaye dëgg gu wér te it bu ñu seetee Sénégal infidélité nekk na fi prétexte boo xam ne tax na nit faat boppam faati doomam ba naaru laay infidélité tax na nit sotti jëkkëram essence taal tax na it jëkkër faat jabaram ma ne infidélité ba ci ñoo xam ne nii takkante wuñu sax jur na fi ay crime réew maa ngi bëgg a tas laa ndax fi mu ne infidélité moom dañ koo jël ba koo defa la mode am jabar am coro ci wet gi warul laa wax de am jëkkër ba noppi di raasaatu saw far ci wet gi <laughs> ma ne wóorul moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax M Touré Andiaye ak d ñoom ñëpp teg nañ leen loxo ci wàllum càcc moto ma ne boo xaat ko sénégalais yi moom dañoo am feebaru sàcc moo tax it jugé nañu leen ba teg leen ay daan ca tribunalu flagrant délit bu ndakaaru mbir mi nag nee ñu nii la demee Amadou Saw di borom moto bi moo demoon ca Auchan bu Sacré-Cœur 3 doon fa jënd ay mbir naka noonu bi mu duggee ci Auchan bi ba génn gisaatul moto ma ne ko nag moto bi naawul de waaye nag comme léegi ndakaaru njaay léegi fépp ami bët moo tax lu waay di def bu yaboo nga def ndànk ndax boo ragalul bëtu yàlla bi am na yeneen i gët yu fi taxaw di la xool ndekete M Touré bi muy sàcc moto bi caméra de surveillance si jël nañu ko bi asaw borom moto bi xamee ne caméra de surveillance si jël nañu ki sàcc motoom ci la porter plainte ca sûreté urbaine comme nag xam nga suñu police yi dañoo xarañ ci la ñu tegee loxo M Touré naka noonu nag bi ñu tegee loxo M Touré M Touré moom it dal di dénoncer Ondiaye Ondiaye moomu nag moo nekk nekk complice am di ab mécanicien bi nga xam ne saa bu Émou Touré moto ca moom lay dem mu pentiraat ko ñoom ñaar ñu teg ko ci marché bi ay ay ay bari pexe ba ñu sàccee moto boobu na ñu ngi ko jaay waaju ñaan desis à quatre-vingt mille francs moto quatre-vingt mille francs yow it xam nga ne yaa dugal sa bopp de Émou Touré ak Ondiaye na di mécanicien bi nee ñu yàgg nañoo def lu ni mel <laughs> ma ne moo tax it teg nañ leen loxo waaye jaaraama le peuple def nañ ko ci jàmm réew mi nekkat ci jàmm di woote ci jàmm xëy liggéeyi ci jàmm leçon yi ci am nag nguur gi war na cee tiire ay leçon yu yaatoo yaatoo yaatoo yaatoo yaato waaye ñu ngi xool lay xew assemblée opposition bi peuple bi teg na leen i gëdd fu wàññeent di mujjee ki gëtam mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz